yegg ci fi ñu bëggoon yegg wala sa donne raison à Ousmane Sonko bi mës jàpp ne que euh, complot la woon. waaw xam nga li wax nii rek dafay am dafay tegtale maanaam na ma yàlla jégal waaye ñàkk respecté sénégalais yi seetaan la. parce que réew mi képp ku xam dëgg di ko wax ñu jàppee la naafeq képp ku xam safaan bi di ko wax ñu jàppee la wax katu dëgg loolu moo fi yi comme ni ko suma frère bi waxee léegi maanaam dafa dem ba nga xam ne booy dem ci plateau sax. dañ naan la yenn dëgg yi nëbbu ko te ana dëgg bu ñu fa war a nëbbu juste que maanaam départ nañ mars 2021 nga bëgg koo jàpp ci anam boo xam ne boobu benn preuve génnul benn preuve aw ma preuve amoo preuve keneen amul preuve Ousmane dafa génn daf point de presse wax ak sénégalais yi sénégalais yi maanaam euh, gëm ko ci kàddoom rek booba Baye Mbaye si génn génnut ak preuve yi audio yi nit ñi yor extra extra léegi yàlla di def di dem di dem ba booba la ko sénégalais yi bañoon waxuma laa nag bi nga xamee ne preuve dafa génn ñëpp teg ci seen bët ndaw si wax ci ay audio ñu dégg wax ci ay faits yoo xam ne ñëpp xam nañ ne lii amul indi ci ay tur yoo xam ne boo fekkoon ne pays droit lañ nekk tur yooyu ndaw si indi na ñoom ñoo ko doon def loolu nangam ak nangam ñooñu dañ leen waroon a gisé laaj leen waral ñu def lii nii loolu defuñ ko docteur bi nga xam ne moo indi mbir taxaw ne ne dañ ma doon nger. musu ko wax waaw même rek may ma bul fi wax lu amul. ma ne man yàlla laa gën a ragal ci yow da nga may déglu. da ngay wax dañu laa déglu. dama ne da ngay déglu rek. sëñ bi mënu wax amul technique. bu loolu mënul nekk. déglul sëñ bi. déglul lépp lépp loo mënti déglu muy mujj déglul rek. souffrir la nag parce que da ngeen déglu yaa ngi dégg docteur bi wax li muy wax nit ñi dégg ko yaa ngi dégg ñu ne déet ki nga xam ne nii mooy capitaine Touré wax ba wax biir enregistrement bi nga xam ne ndaw si bàyyi na fa téléphone am dugg di dégg aji saar di wax ak nit di ko wax nangam ak nangam dem baraan ko tamit ndax lii dama ci am problème waaye yow naka ngay nekkee ci dëgg ba pare di laajte ndax lii dana am problème wala ma ci am problème kon mbir moom dafa feronku laayoon jotul ñu koy indi ay mbir ak yu kenn xamul ñu demati ba nga xam ne nag au début ba seize personnes dee ci ou quatorze ñu ne déetewaay ñu ñëwaat suqaliwaat ko ci ci ban anam dañ ko suqaliwaatee il faut que ñu fàttaliku. Mhm. moom dafa wax ci président de la république Macky Sall. oui njiit boo amul yërmande ci askan. Mhm. yàlla par force moo la dooleem. tabaaraka alladi bi yadihi l mulku wa huwa alaa kulli shay'in qadiir. xamul Adji Sarr. looy wax ci loolu danaa ñëw danaa ñëw foofu waxoon na ne xamul Adji Sarr. mu ne dem na fa. danaa ñëw après danaa la toog ci incohérence yooyu. d'accord yëpp at danaa ñëw. yaa ngi dégg ci biir loolu yëpp nag euh, président Macky Sall bi loolu yëpp passé Serigne Mountakha ak mboolem xalif wax ba jàmm dellusiwaat ci réew mi sañ sëñ Muntaxa yebal bas Bass Poroxaan mu ñëw fekk fii sees Pastef ñi nga xam ne war nañ fekk ñu ay kàngam ñoo toog waxtaan Ousmane Sonko bind leetar wax lim soxla ak li mën a indi jàmmi réew mi wat ci diggam moom ak boromam ne mosul xam Adji Sarr. waaw tarfatalaay. kon kàcc na. yaa ngi dégg ak yeneen ak yeneen. d'accord alors ñu jël loolu jox sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa ne jàmm Macky Sall bàyyi ba immigration kafrin fa xaju fi bi ñu immigration hôpital Kaffrine mu ne lan am na ñoo xam ne dañuy toog seen gannaaw ordinateur di kàcc kàcc yi nangam nangam nangam nangam. Mm-hmm. te ku ne woon li fi xewoon di fi xewaat bañ yegg ca nguur guy teg tëkku askanam te saw askan doole joo am ñoo la ko jox. Mm-hmm. ba dara dul dara démb nekku goo dara kenn xamu la saw askan ñoo la jël di la xeexle xanaa tey la tey lañ wax waxu waxu faute occulte xaw ma leen koy waxee ci français yi sax ngeen. déggal ma force occulte. Mame Mbaye toog na fii télé na na 2011 ba ñu mën a xeex bi maa doon dicté nañ taal fii nañ def nii nañ def ni ci télé. mais tey ngeen xam loolu tegu ko ci tey ngeen xam loolu. ma ne tegu ko ci yoon waaw may ma rek may ma rek. tegu ko ci yoon. ak ñeneen ak ñeneen. man ñoo xam ne waaw may ma yow li nga def ni moo gën a bon parce que nit di wax nga koy def ba ñu la dagg moo gën a bon loolu. moom dafa wax ne yow may ñu rek wax pare laaj ko ko après yéen a far. waaw da nga koy wax ci télé bi yow. non non moom moom li mu wax laa la wax. Mame Mbaye Niang daf ni mars 2011 Ousmane Sonko laa wax. nee na musu fa dem. musu waaw mais je pense que même débat boobu évolué na dépassé nañu. là je pense que ça a été très clair. de de on a dépassé ce débat là amul lu mu fajoo dafa dem pour faju d'accord foofu hôpital waaw waaw yow xam wax jooju amul. léegi ma laaj la. mais yéen da ngeen ñëw bëgg a dugal diine ci loolu te diine jotewut ak loolu. waxuma diine. du hôpital daal da ngeen naan parce que diine nangam. léegi lu ñu di wax ci musique Macky Sall taxaw Youssou Ndour di musique muy fecc biir lu wax ci loolu man damay fecc alors euh, Niass ah. <laughs> je pense que débat boobu sax euh, euh, <laughs> amaana jàll nañ ko parce que dem nañ ba verdict bu tombé wane ne que viol amu fa je pense que là c'est c'est c'est dépassé xam nga yëpp sénégalais sax wésu nit ñi toog biir deux ans beneen étape lañ nekk dugg ci ay jacuzzi lan mooy loolu sa ko si yow yaa fekkee alors loolu mais mais mais pourtant nee na xam nga ñuy wax ne am na ak amul. Hmm. Eh, eh, mais démb. viol ak pénétration bi eh, s'il vous plaît waay. boo le ministre de de la justice. de la moom dafa wax ne. Mhm. Ousmane Sonko sitaluñ ko ci viol. Hmm, voilà dañoo disqualifié les faits de viol la. waaw waaw non ñëpp dégg li mu wax. Ah. xam nga benn juriste tontu na ko. xam nga dafa am loo xam ne nii. c'est-à-dire que aussi amul sens. font ko amul sens. yow nit ki indi nañ ko tribunal. Mhm. ñu gis ni bu fekkee disqualifié wuñ ko ci viol moom effectivement violé na def na corruption de la jeunesse mais ñu bàyyi viol bi ne dañ koy tëj corruption de la jeunesse. Mhm. mais en droit kay booy disqualifié ay fee da ngay jël fee bi nga xam ne nii moom moo gën a diis waa ji tontu na ko. nee na la non xoolal béy s'il vous plaît man bu ma imposer sa rythme boobu. man nekkuma ci loolu werantuma ak yow man damay analyser je man su may wax rek dama ma. tu n'es pas tout à fait neutre. waaw waaw nga bàyyi ma wax man bu ma def. waaw no juste waaw non non non man j'ai pas besoin de ça. vous le faites avec moi bu ma imposer sa loolu. ok sa indiscipline boobu moo ko imposer da nga ko indiscipliné. voilà pour mu leer rek. yow tu es très indiscipliné dans les may wax mooy non non jeex na. non ça waaw xam nga dama bëgg a wax leen mais c'est-à-dire que. no je n'ai pas de problème avec. alors euh, xam nga li ma bëgg a wax mooy. li ma bëgg a wax mooy. c'est-à-dire que ñoom seen bopp seen biir communication bu ñuy wax da ngay gis ni ils veulent semer le flou man cependant eh, na ne li ñuy wax ci affaire force occulte man weddiwuma ko noo dëggaluma ko mais weddiwuma ko man su may wax damay bëgg a wax en tant que citoyen boo xam ne damay xalaat samay doomi ëllëg d'accord du ma wax koo xam ne dañ laa armée bi ngay ñëw que tu sois de l'opposition ou du pouvoir noo man je veux rester lucide parce que boo paree da ngay perte sa lucidité Djibi Samb dafay wax mu ne l'objectivité et l'hygiène de l'esprit mm-hmm. gis nga les force occultes en Afrique bu ñu sañoon am na ñoo xam ne tous les pays africains dañuy instable mm-hmm. loolu dafa nekk ci àddina bi <coughs> aujourd'hui am nañ pétrole aujourd'hui am nañ gaz il y a beaucoup de personnes xaw ma nag ñan la man ji ñu ma ko waa Pastef ji ñu ma ko ñeneen mais je me dis que hypothèse bi mën naa am que ni am na ñoo xam ne dañuy rax pour yàq suñu réew parce que quand le pays est en guerre nit ñi nekkuñ ci jàmm ñoom il peuvent en profiter di def lu leen neex loolu moom moo ci nekk mm. cependant bu ñu demee ba nga xam ne nii force occulte am na mais raison de plus pour que l'état sénégalais montre que c'est un état en faisant quoi mais mm. contrer force occulte yooyu jàpp leen indi leen ne ñooy force occulte. mais justement professeur mais taxaw ci télé bi c'est ce que les gens c'est ce que du ñoom seen bopp ñooy les. forces justement professeur la nit ñi doon xaar xam nga nee ne xam nga nee ne gis nga un président de la république ak un état du wax. Mhm. quand le bateau le Joola a coulé. Ablaye Wade génn naan les Sénégalais doon ñu war a def seen introspection dama bind ne ko loolu du sa wàll on t'a pas élu pour nous faire la morale. ces gens la on les a pas élus nourris jox leen xaalis lu ne pour qu'ils nous fassent la morale il y des forces occultes c'est un état organisé c'est le pouvoir politique institué à qui on a donné doole ji sañ-sañ bi légalité bi xaalis bi pouvoir bi nañ ko jàpp indi ko wax ñu ko sinon li ñu war a def mooy Macky